والقلم وما يسطرون السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين على تنتو كولا أن كسلكي لما محمد صلى الله عليه وسلم kal konton l'islamu konton doɗola mum assalamu aleykum wa taala wa barakatu e eh, nabiŋo hani yataran me ŋaalon ka kuta kutayandi e eh, suñu président départemental de eh, imam Saïd Diaw ci place biñ toll nii nekk maqar li nga xam te ne moom mooy ittihaadul madarisul quraniya fi Sénégal faru Sédhiou moom moo doon dalal ay gan e, muy joxe xibaar ne ki nga xamante ne moom mooy président régional de Al Oustaz Habib Dramé jokkoo na ak moom fan yii e, di ko wax ne ko am na gan yi fi war a ñëw ndax gan yooyu noonu jiitu woon na ñu jaaroon fi e, ci li yàggul lool lool jaaroon si ay daara yoo xamante ne lim na ko nee na nee na ko ñooñu danañ fi jaar danañ fi ñëwaat niki datu tey bi su ko defee eh, jéem a waxtaan ak ñi nga xamante ne jotoon na ñu dem si seen i daara nemmeeku leen ñëw nañu am na lu ñu indaale loo xamante ne lu leen bëgg a jébbal la loolu mooy seen tànk su ko defee ñooñu dañ leen jox eh, micro ñoom ñu leeral li nga xamante ne moom mooy seen yoon waaye loolu la président Seydou Imam Seydou Diaw daal di leeral di dalal ay ganam di leen wax bisimilah ci département de Sédhiou incha allah région de Sédhiou. man nag maa ngi tudd maa ngi wax Euh, société bi nga xam ne mi ngi tudd c trois s C3S euh, ab société la boo xam ne dañuy jaay ak jënd jëm ci aluminium ak verre aluminium yi ñuy defaree bunt yi ak fenêtre yi ak verre yi daanaka bokk na ci ñi nga xam te ne ñoom ñoo koy def Sénégal léegi nag mu am loo xam ne euh, société bu nekk ci am réew rek da nga koo warloo ak réew ma mooy ji jëf ay jëf yu baax jëmale ko ci réew ma loolu la ñuy wooyee responsabilité societal léegi nag euh, c 3 yàlla dafa def ne muy société boo xam ne ay dongay daara comme ñun ñi yàlla dogal ñoom ñoo ko moom yàlla dogal ñu nekkoon ca daara ja jàng ak a jàngale waaye tamit di yaxantu yàlla barkeel yaxantu ba ñu ne nag kon la ñu war a delloo ci société ba waaye ñoom ñoom comme que ci daara lañ soxi ko lépp ñoom lañuy delloo ci société ba ñoom ci alxuraan lañ ko bëgg a def moo tax tamit ñu xool mu ñu gis ne arxuraan am na fànn goo xam ne eh, ñu bari ñu ngi ciy yëngu waaye am na fànn boo xam ne dañoo gis ne kenn laalu ko ndax dañoo gis ne tare alxuraan mokkal ko ak tajwid ko réew mi mi ngi ciy dox ay jéego yu am solo te mi ngi mi ngi jëm kanam alhamdulilah moo ñu gis nag ne wàllu bind arxuraan dafa mel ne lañ ci amoon sax ci ay avancé dafa mel ne luñ gën a jëm ci kalam day gën a deltu ginnaaw loolu day nekk waxtaanu gudd woo xam ne amaana bu ñu ko tàmbali woon la ko waral euh, mades na koo xam léegi ñu ne kon foon nañ fexee kon loolu mbind alxuraan ñu indiwaat ko ci daara yi ba daara yëpp di ko boole ci seen programme léegi nag ñu euh, ñu gis ne bokk na ca kon xale yi nañu am ay jàngukaay ndax dañoo gis ne téere yi ñëw ay téere machine la loxo bind ko kon kenn mënu cee jàng bind kon téere yi demoon ba daara yi am ay téere kon seeturaas mu ne naa jéem ci téere yi ba fexe ba daara yi tàmbali amaat ay téere asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi tudd Serigne Sam Mbacké eh, jógee Touba eh, ak eh, délégation bi nga xam ne ñoom la c 3 si yabal ngir ñu liggéey liggéey bi comme ni ko suñ maamun waxee C3S société la boo xam ne day euh, dimbalante ak sëriñ daara yi dimbalante boobu nag da am fu mu xool foo xam ne daara sooxe na fa mu di fa jaaral dimbalante boobu dañ gis ne alxuraanul karim ci wàllu tajwid ci wàllu mokkal Sénégal bokk na ci réew yi ci jiitu ci àddina si loo xam ne ñëpp seere nañ ko ñu gis ne nag am na lu mu daan àndal démb muy mokkal alxuraanul karim ba pare bind ko bind boo xam ne même boo koy bind sax doo ko gestu comme ñun ci daara yooyu lañ jaar ñu bari ci lañ jaar mais dañ gis ne bind alxuraanul karim ci anam boobu daara yu baree bari léegi defatuñu ko ngir sabab yu bari société bi nag gis ne comme wàllu mokkal ak ak tajwid am na ñu ca taxawee moom ndimbalam na ko na ko jaare ci côté bi ñu maanaam mooy nu ñuy def ba donga bi su mokkolee alxuraanul karim man ko bind na ko mag ñi daan bind te du ko gestu mu ne nu muy def mu ne kon na organiser li ñuy wooye concours boo xamante ne bi ngir nga bokk ci da ngay mokkal alxuraanul karim parfait ba mu jeex aussi da nga koy mën a bind ba mu jeex te doo ko xool concours boo moom la ñuy wooye musabaqatu rasmil quraan euh, rasmil quraanul karim wa hifzihi xam ngeen ne yeneen a koy gis bii mooy juróom benneelu at mu di ko def ngir nag xale yi mën a jàll ci concours boobu dafa am lu mu laaj da mokkal bu baax xam ngeen ne xam ngeen ni alxuraan karim dafa bari ay xam-xam yu ci nekk soo ko mokkalee ba pare du doy ndax xam ngeen ne bari na lool koo xamante ne bi masalan faatiha bi bi bi ñëpp mokkal bari na lool ñu ko mokkal waaye xëy na soo leen ko binduloo woon duñ ko mën a bind dafa bëgg nag niñ mënee mokkal aussi ñu mën a bind noonu concours boobu na ngeen nga jàll ci lim laaj am na xam-xam yu mënut a ñàkk xam-xam bu ñuy woowee rasmul xuraanil karim muy baat bi naka lañ koy bindee xam-xam buy jàngale euh, euh, baat bi nuñ koy maas mu li ñu woowee dabt ñu nekkoon nañ fexe tàggat sëriñ daara yi tàggat ndongo daara yi ci ñu xam buñ mokkalee ba pare alxuraan karim naka lañ koy mën a bind mu ma nekk mbind mu wér mais aussi naka lañ koy maase mu nekk maanaam maas bu wér loolu nag niñ ko mën a jaarale faw dangay ngay mën a bind mokkal mën a bind xam xam dabt loolu moo lay may nga foo xamante ne bii da mën a bind mbind moo xam ne dana mel ne mbind mii Cheikh Anta Gaawaan ngay bind mbind mii ngeen gis kii ñëkk a jël premier ci concours bi moom maanaam moom moo ko bind ci loxoom baas bi ngeen gis moom moo ko bind ci loxoom ah ñu fexe nag nuñ demee ba waa waa siddu bi mën a bind mbindu mu mel ne gis ubbi loolu ci la ñuy dox xale yi jàngal leen nu ñuy binde boo xoolee eh, dañ tàqale araf yi jàngal leen leetar yi nuñ koy bindee loolu lañ ci jublu aussi itam jox leen téere yoo xam ne danañ ciy xool di ci man di roy ba bu yàggee fii ay at ci kanam maanaam mbind mbindum mbindum senegal dana saaroo fu baree baree bare société bi loolu mooy ay mooy ay jéegoom mooy ay tànkam ñu fexe ba dañ dem ba suñu ne concours bind alxuraanul karim ñu ne ah ren day waa Sédhiou ñoom ñoo ko jël loolu lañ soxla ci mbind mu rafet ci mokkal ci xam rasm ci xam dopt Cheikh Ibrahim Cheikh Saïd Diao lii daal moo tax ñuy dox fas yéene ñu bëgg ngeen tàggat gone yi ci ñu mën a bind mbindu réew mi xam ngeen daara joo dem ne ko moom maamun waxee léegi kaamil yaa ngi fay fekk bitim réew la jógee benn Algérie wala Maroc wala Tunis moo fi gën a bari dañ dem dañ bëgg nag dem ba àgg ci fu ñu dem fekk fa kaamil yoo xamante ne bi suñu waa réew ñoom ñoo ko bind wala senegal ñoo ko bind sa sa jaawo ci tënk daal euh, li li taxqiq hadi al euh, ahdaf sharika بطبع هذا الجسر وتوسيعها على مدار القرآن في السنغال كلها mu ne lii de moo gën mbir moo gën lu bari wala moo gën lépp ndax jàng alquran ak di ko bind mu ne kenn ku si nekk xam nga ne ñun borom daara yi am nañ jafe-jafe ci wàllu mbind mi nga xam te moom ngeen indi mu ne xale yi boo leen ne nañ toog tey bind daanaka du ñu nangu il faut nga nga teg ci forcé il faut nga forcé leen te tamit forcé bu eggee ci yenn yi mun naa am nga am jafe-jafe ak ak nguur gi te loolu eh, lu lu la mus na mus na bokk ci benn réunion ci wàllu njàng mi mu ne jamono yuñ toll nii bu kenn gërtal xale bu kenn dóor xale mu ne mu ne la ah man de loolu de d'accorduma ci ne sallallahu alayhi wa sallam alquran bi keroo bi mu koy jot eh, coono bi mu ci dajoon coono boobu noonu eh, kenn mënu koo natt mu ne ñu ñëpp dañoo de jàngoon daara xam nañ ne jibril buy fekkente mu ngi wàcc aaya si yonent bi sallallahu alayhi wa bu doon sax jamonoy sedd la dana dem bi yëg tàngaay ba ba kon loolu coono la léegi bu fekkee dañu wax ne xale na jàngawaay bu mu sonn mu ne kon loolu jafe-jafe la problème la mu ne loolu mat naa xoolaat mu ne moom de ay xalem bés bu ne loolu lañ di wax mu ne leen élèves yi ngeen di gis ni ñi dem ci école école français bi bés buñ commencé di jàng keroog la ñu commencé di bind waaye nag léegi te ñooñu nguur gi dana am na fu leen féetoo di leen jox ay ay livre leen yombalal lu bëri waaye keroo ñoom bu ñu commencé di eh, di jàng ba keroo bu ñuy jeexal ke bu nekk ñu ngi bind léegi yéen bu fekkente ne yéen taalibe yi dong daare bu fekkee da ngeen ni jafel mbind mu mu ne kon loolu dafa nekk jàngoro boo xamante ne jàngoro bu daj bu daj la mu ne loolu da jàngoro la si daara yëpp mu ne kon nag góor góorgóorlu ñu jéem a roy ci mbind di jéem a bind bind bind mu wér mu ne gannaaw loolu nag benn tey mu ne ñu ngi leen di gërëm di leen sant mu ne li ngeen indi nii mun leen indiwaat liggéey li ngeen indi nii ndax alxuraan ngeen indi te moom mooy lépp mu ne kon nag eh, mu ne ñun de amul ñu leen di fayee xanaa di leen ñaanal di leen yokk ñaanal mu ne ñaan ngoo xamante ne eh, incha allahu macha allah mu ne sallallahu alayhi wa sallam dafa ne man ataakum maarufan fa kaafiuhu bil maarufi wa in lam tajidu maa tukaafiuunahu faduu lahu hatta taraw annakum kafaatumuuhu mu ne kon nañ leen ñaanal da ngeen yëg ne département Sédhiou bii ah moom am na ñaan moom te ne jagleel ne leen ko mu ne loolu mooy li nga xam te ne bëgg na koo wax di leen niiw len leen gërëm di ñu di ñaanal ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah anta bi ni'mati rabbika bi majnun